association tous solidaires pour Porokhane di kuréel goo xam ne dañu ko sos ngir muy jàppale fondation Maam Jaara bi nekkee ci Porokhane ak daara Maam Jaara ji ginnaaw ziar bi nga xam ne amal nañ ko ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides jébbal ko ay koppar yoo xam ne dafa jëm ci wàllum parrainage bi ñu xayma ko ci 12 millions 243 mille francs CFA tolloog juróom fukk ak ñaari Maam Jaara yoo xam ne dañ leen di jël en charge ak 600 mille francs CFA yoo xam ne dafa jëm ci njaayum carte soxna jaara yi ginnaaw ziar boobule ci la ñu ñëw fii nga xam ne moom moo di ci poroxaan ci daara ji doon fi indi ay jumtukaay yoo xam ne dañ koo indil maam jaara yi mu jëm ci ay ordinateur ak yeneen i produits yoo xam ne dañu ko yitewoo Ah, di sant yàlla bu wax ba ñu dellu siwaat yàlla may nu kàttan nag mën ak wér ba ñu dellu siwaat ci daaray maam jaara tey jii ah, def nañu daan def ah, tey nag dañoo ñëw ñëw boo xam ne ñëw bu am solo ndax ñoo ngi ànd ak sunu soxna jaara sunu soxna jaara bi jógee ci région Île-de-France ñu di ko indi mu war a dugg ci daara ji ñu di ko ñaanal mu dal ak jàmm ak salaam ñu ànd ak nag mbooloo mu takku boo xam ne tey jii non seulement association tous solidaire pour Porokhane France Euh, di di di euh, mbooloo mi nga xam ne ñooy ndeyu daar ak baayu daara soxna jaare yi euh, dañoo ànd ak aussi association tout solidaire pour Porokhane fii ci Sénégal di kuréelu nooru daare ni soxna bu Bousso ànd ak sunu jëwriñ yi nga xamee ni tamit ñoo ngi nekk ci Europe nga xamee ni tey jii ñoom la ñu bokkal liggéey bi nga xam ne tey jii moom moo nu indi fii muy bagage yi nga xam ne moom la ñuy wàccee di lépp loo xam ni nag dafa yitteel daara ji muy ñu tàmbali ci li nga xam tey Euh, euh, mébét noonu nañu ko at mi yëpp ñu am ci ñaari barigo muy shampoing ay shampoing pour xale yi euh, ndax comme tey jii sunu ay mbokku taalibe yu Pastef ubbi nañ fi salon de coiffure pour xale yi war a traité seen bopp dañuy fàttali rek ni sëñ Moustapha Bassirou ba mu sampee daara ji rek lépp lu ko yit lépp lu yitteel xale yi ci ci ci norme hygiène qualité de vie lépp sëñ sëñ dañ ciy taxaw moo waral bi tey bi bi salon bi ubbee suñu nu euh, shampoing yi ñu indi ci ñaari bërigo waaw moom la ñu wàccee noonu indil nañu tamit centre de formation bi lu tollook euh, quinze 14 euh, ordinateurs ndax dañuy renforcer ndax formateur war na ñëw ren pour former xale yi ci informatique indi nañ leen 14 ordinateurs indi nañu tamit lépp loo xam ne day indi day nekk produit pour désinfecter daara ji ndax képp ku ku xam na ni fu ay xale nekk 550 soxna jaar ak ña yore nekk foofu war war naa am euh, euh, euh, ak ak ak ak cet tàmbali ko ci désinfecter lépp loo xam ne rek day day day day day day baaxul ci yaramu nit waaw loolu indi nañ ko muy produit kafaar mbóot ak puce lépp loo xam ne rek waaw mi ngi noonu ak daal yi bagage yoo xam ne daal moom ay divers lay doon ndax ñun suñu mbébét rek mooy lu daara ji yittewoo rek euh, ci ay produits ñu ñu ñu ñu jëf ko mooy bagage yi nga xam ne moom la ñuy wàccee. association tous solidaires pour Porokhane ñëw gi bokkoon na ci it sàkku si waale ñaan ci Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassirou mi nga xam ne moo jiite fondation Maam Diarra Bousso bi ngir mën a door liggéeyub dortoir bi nga xam ne moom lañu sasoo maanaam bâtiment boo xam ne Maam Diarra yi dañ ciy dalloo. di pose première pierre euh, dortoir yi nga moom la ñuy mbébét euh, ñaari at yi. ànd si suñu euh, kilifa suñu sang sunu jëwriñ Serigne Issakha Mbacké ñoo ngi ñoo ngi leen di sant bu baax jëwriñ yi nga xam ne Europe la ñu jóge euh, di fédération daayira Maam jaar Angleterre fédération daayira euh, Maam Jaara Belgique ak daayira Maam Jaara France daayira Maam Jaara Paris Taysiroul Assir di sant yàlla bu baax baax baax baax ginnaaw bu ñu leen joxee ndigal balay yàgg daañu door liggéeyub dortoir bi nga xam ne moom la ñu sasoo waaye sëriñ Isaaxa Mbàkke moom ba Basiiru sant na leen bu baax a baax ñoom association tout solidaires pour Porokhane ci seenub taxawaay jëmee ci daara maam jaara ji nga xam ne seen loxo du ci jóg benn yoon. waaw fan yi itam soxna Caara bi mu màggal see moom itam ànd ak ñi mu àndal eh, xam naa yàkkamti woon lool lii projet bi mu jëloon mu dàmbalee ko ma ne da ngay xaar ba loolu àgg. Eh, bu ko defee comme danaa fa dem mën na noo àndaale sax nu nga fekk ko yow itam ndax boobaa moom buñ xasee ba plan bi xasee bu am rek jeex na léegi ku bëgg a tànn dangay ngay tànn loolu dana ci baax lool te itam yaakaar ne dina facilité yooyu ndax loolu itam ñoo ngi bu baax a baax ndax daanaka mën nañ ne évolution daara yi day ànd ak liggéey ak tabax yi ndax feeg feeg ñu ngi am fu ñu mën a dëkk eh, ñu mën a yokk ñun ñi yéen ñëpp xam ngeen ne ni ko nit ñi bëggee demande yi dafa ëpp lool lool lool euh, li nga xam ne moom lañ mën a def te loolu li ko gën a gàllankoor mooy ñàkk fu ñu def kon nag euh, looloo tax dortoir yi am ci solo lool nag di gën a sant bu baax a baax ci ngeen ànd ak soxna Thiaré ci projet boobu ñu def fa dortoir loolu itam mooy benn liggéey bi la lu lu yëpp bari te amuñu suñu dëkk yi itam. du mën a weesu fi mu nekk loolu tax eh, eh, évolution bi pour nit ñi dafa war a ànd ak ñu am fi ngeen dëkkal mooy dortoir yi kon nag lii ngeen def il naa nekk ci lii ak parce que ngeen ko nekkee waaye bëgg ànd ak moom itam ci liggéeyu eh, dortoir bi nga xam ne ni ñu koy jéem a def loolu itam yeneen cant la moom leen sant bu baax a baax waaw di ñaan yàlla àggale lépp nag yàlla dinañ gën a ginnaaw waxtaan woo xam ne amal nañ ko ak plan bu yees boo xam ne moom lañ bëgg a amal ci daara ji ak bëgg mbooleem bâtiment yi nga xam ne moom lañ fay liggéey lépp méngoo moo tax plus 2 bi nga xam ne moom lañ bëggoon a tabax bâtiment R plus 1 lay doon lépp di ndigalu kilifa yi. dañ dajee ndax loolu laa ci bëggoon ñoom ña fa nekk ñoo mën a xam dëgg-dëgg li ñuy soxla ak ni ñu ko soxlaa ci lañ lañ ne ja euh, fa nekk. comme R plus 1 la ñu harmoniser yooyu nekk benn mooy gën mooy gën mooy gën a yomb ba def ci ñoom ci moo gën yomb réaliser non seulement waaye moom pour ñoom surtout moo gën a <laughs> neex a ci xale yi loolu nag dañ cee tenir compte lool ci loolu ñu waxoon ne mooy gën a neex a gérer ci ñoom loolu taxaw ñu mujj d'accord ne kon na na yëpp rek yem nekk te loolu itam moom moo gën a neex réaliser waaye ku àggali itam mën a jël beneen nga xam ne kon daanaka <laughs> waaye liggéey bi day kon association tous solidaires pour Porokhane di kuréel goo xam ne ñu ngi ko sos ci atum mille 2018 ngir taxawu fondation Maam Jaara bi ak jàppale Maam Jaara yi nga xam ne ñooy jàngee ci daara ji association bi nag mi ngi ëmb ay fédération daara yi Maam Jaara yoo xam ne ña nga nekkee ci réewi tugal ذات المنة قبلي سكينة بكل الجنة من داري من يا ذا المنة